asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mu ngi sant yàlla di julli ci yonentam bu tedd bi di sant Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te wér noonu la ñuy ñaanale xalifab Serigne Abdou Samad di aji mam bu moom Serigne Abdou mu yàgg fi te wér ak mbooleem njaboot gi yëpp ak mbooleem jullit yëpp. di indi tuuti ay leeral Serigne Abdou rek muy doomi Serigne Touba ak Soxna Xari Mbar Sill Soxna Xari Mbar Sill koo xamul mooy sëtub Serigne Mandoumbe Maar ak Soxna Dior Sylla Libaas moom Libaas ba Pathé Ndoumbe Dieng euh, Cheikhul Khadim nag mooy doomi Serigne Touba doy na ab yem waay ay Serigne Abdou samat nekkoon ku amoon ub cër ndax ñi mu bokkaloon Serigne Touba ñoo ko nanguloon nduru gi sëriñ Touba lool ci jëmm ci jikko ak ci lépp ñi mu bokkal Cheikhul Khadim ñoo ko sereel mu feeñ moom Serigne Abdou samat ci atum 1917 ci miladiya ci njaareem yàlla dogal mu génn àddina 1948 bi mu feeñee tamit Serigne bi tuddee ko euh, bi tuddee ko turam wu tedd woowu di Abdou Samad nga xam ni saa boo ko déggee rek danga xam ni tur yooyu ci turi njabootu Serigne Touba rek la bokk. mu doon nag koo xamee ni euh, fi njabootuk sëriñ Tuubaa gépp di jaar rek lañ ko jaarale sëriñ bi boole ko ak ñimu mu ci ay at mu mel ni sëriñ Souhaïbou mi nga xam ni moo di seexam ku tudd sëriñ Abdou Samad tudd njabootu sëriñ bu ak euh, sëriñ ab sëriñ Salihu euh, sëriñ Abdou ahat mage leen tuuti di seen kilifa ñu boole leen ñoom ñëpp jox leen seen nijaay sëriñ Amsatu Jaxate mu mu jàngal leen ci jànguwaay yoo xam ni seeni kër maam la ci askan yi di askanu Mbakol ba liñ xam ba xam bañ xam liñ war a xam waaye sëñ Abdou Samane nag jaar na ci sëñ bu Bousso ndax moog sëriñ Abdoul Khadir bokkoon nañu nekk ci sëñ Mbacke Bousso. mu doon koo xamee ni tamit foo dem ci njabootu sëriñ Tuubaa gi fekk fa aw turandoom ñoom nag euh, dañuy jàngale rek ñoom waa kër sëriñ Tuubaa yi Serigne Abdou samat nekkoon koo xam ne nii li Serigne bu seere ci moom te ñu taataane ko Serigne Abdou Samad ou Serigne Abdoul Khadir mu wax ni Serigne Souhaïbou daana wax naan moom de li mu xam dafa mel ni euh, suñu borom ko xamal li mu xam rek waaye nekkul li mu xam lépp nekkul lu ñuy taataane di ko jàng ci jàngu dafa mel ni lii mu xam daal ndax ñoo bokkoon fu ñu nekk waaye dafa mel ni moom li ëpp yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo ko xamal Serigne Abdou samat nekkoon ku bari ab génn wax nañ ni euh, sax mooy kii ëpp njëkk a génn bokk ci njabootu sëriñ bi di wane Serigne Touba ndax lan jamono jooju entre mille neuf cent man nga ni trente rek jàpp quarante ndax lépp ci trente jàpp quarante xëy na la ko dox wala trente cinq jàpp quarante et euh, quarante huit gi mu nelaw ndax. ku bari ab génn la daana wax euh, naan mos naa wax nijaayam Serigne Massayer Sylla ni ko sama fas wii xam nga nu ma ko tuddee fekk dafa yoroon aw fas la daan yor fas wu yéeme mu ne ko noo ko tuddee mu ne ko lislaam laa ko tuddee mu ne ko doo ma laaj lislaam lu mu wundu mu ni ko lislaam lu mu wundu mu ne ko saa bu ma waree sama fas wii ba fas wi jéggi benn jéego rek lislaam yokk kooku mooy doomi Serigne Touba nag waajur mu baax ma waxoon ni wa biya jaddi sabil yàlla na nga yeesal euh, sunna yonent bi ci sama jëm lil Moustapha na waytu maa yi jaddidu sunnatuhul xaraway ni Ahmadu si Abdou Samad yoroon fas woowu mu daan wëre réew mi tudde ko l'islam dem ba Casamance ci entre 1940 ak 48 te booba dem Casamance yombul. wax nañ ni dem na ba dëkk bu naan bu ñuy wax yóotu ci jamono jooju euh, def fa kër tuddee ko kër sëñ Touba kon loolu dafa mel ni ci moom lañ ko njëkk a déggee muy kër sëñ Touba ndax ba mu defee loola entre quarante ba quarante-huit jël kër ga ñu jox ko ko fa mu defar ko wax taalibe ya fa nekk euh, ñu ñu defar kër ga tuddee kër ga kër Serigne Touba booba loolu xewagul woon kon wax mën nañoo wax ni ci moom lañ njëkk a loolu muy kër sëñ Touba. yàlla dogal tey jii ay Abdou Samad yu bari ña nga Casamance yaakaar naa ni bisu bi ñu koy fàttaliku rek ci Touba wala bisu màggal wala lu xew ci kër sëñ Abdou Samad da nga gis ñoom ñëpp ñu def ay délégation yu bari bàyyi koo Casamance ak tundu ak la ko wër ñëw ci aji maam Bousso doomam ju baax ji mu fi bàyyi te mu mat sëkk sëriñ Abdou Samad taxaw taxawaay bu am solo euh, digganteem ak njabootu sëñ Touba gépp waaye rawatina nag Cheikh Mamadou Fadal ndax Cheikh Mamadou wax ni. sëñ du de daa nduru sëñ bi ba nduru ko ni muy dugge cib néeg ak ni muy génne cib néeg saa boo gisee mu def ko rek danga xam ni sëñ du moom euh, al waladu sirru abihi doom daal mooy secret way juram euh, yàlla dogal euh, mu bari ab génn lool nag daan génn lu bari réew mi mos naa dem siin wala Saalum seeti mbokkam mu baax ma sëriñ Malick Bassine si bi mu duggee ci dëkk bi wax nañ ni keroog ndeysaan sëriñ malik Bassine fekk na ko ci mage ba mënatu la sax euh, génn ba génnam bareetul bokk waaye biñ ko waxee ni ko am na ku lay seet mu ni kan la ñu ni ko Abdou Samad ibnu Xaadim Rasoul dégg naa dañuy bërët ndox fekk si ko mag ñi sëñ Tuubaa rek la ñuy wut sëñ Tuubaa rek la bëggoon dégg naa bi mu ko gisee rek xaal la ko jëral ju metti mu daldi wax ñëpp tund wépp ni leen kawoon njaaree ma ngi nii kama gisoon na ngi nii sama waa jaa ngi nii na ñëw na ñëpp ñëw siyaare te yeeslu sëriñ Tuubaa ngi nii xarfan bi xarfin sëriñ Malick Bassine si wax nañ ni keroog loolu la seere ci sëñ Abdou samat bam ko fekkee ca dëkkam bu tedd booba nga xam ni sëriñ Malick Bassine kenn la woon ci njabootuk sëñ Tuubaa waaye di mbokkam jaay lépp jënde ko taalibe bokkoon ci abid yu mag ya bokkoon ca euh, bokkoon ca alim yu mag ya nekkoon borom cër bu mag ci yàlla waaye jeexoon takk ci sëñ Tuubaa loolu la seere ko roog ci sëñ ci sëñ Abdou Samad nii kama gisoon jaaree ma ngi nii waajaa ngi nii suñu waajan àndaloon a ngi nii kon sëñ Abdou Samad euh, dafa matoon sëkk Serigne Touba digganteem ak Serigne nag sëñ Modou Sakho bëggoon lool ba yëkkati ko tegoon ko ci loxol sëriñ Fallilou dénk ko sëriñ Fallilou sëriñ falilu moo ko jox ndigalul mu sanc fii ci buntu Mbar boole kook Serigne Talaatu Bousso kon euh, sëriñ Cheikh mi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Fadal du bis bi di dox ci njabootu Sëñ Tuubaa ba si tey ci Serigne Abdou Samad waajuram bu baax wa moom la Cheikh Abdoul saa boole woon ak Sëñ Abdou Samad mu jël Sëñ Abdou Samad boole kook Sëñ Talaatu Bousso mu nekk buntu Mbar sanc fa daaray al ab dëkk nekk fa sa yor fa daaray tarbiya ak daaray alquran wax nañ ni sëñ Abdou Samad mos naa dem ci àll boobu di njàmbur ba jaar Louga daal di yëglu ni nuyu si maam Cheikh Ahmed Kabir mu baax ma euh, bim biñ ko ko yëgalee moom nag danaan wax Abdou Samad ibnu Xadim Rasoul <laughs> doomi sëñ Tuubaa nag ku ne ak saw meloo ku ne ak saw doxin dégg naa bi si Ahmad Kabir génnee euh, euh, ñu waxtaan saafonte ba noppi nuyoo mu wax sëñ Abdou Samad wax ko dëkk bi muy jëm ca la ko booleeg maami sëñ Abdou Samad Dieng moomu wala waajuram waajur sëñ Abdou Samad Dieng moomu mu ànd ak moom bijjanti ko ca la ko ko joxe tamit waaye ba mu nee dënn dem rek nee na sëñ Cheikh Ahmad Kabir dafa seere ni man de doomi sëñ Tuubaa ji yéem na ma ndax gis naa ci moom loo xam ne ni doonul ku nu war a yilif nee na sëñ Abdou Samad doonul ko war a am kilifa ci kaw suuf te ñam bàyyi Touba ñu ay kilifaam ñooñu mat nañ kilifa ku ne yéem na ma lool mbiram mbiram yéem na ma loolu xam naa ni soriwul ak bi mu génnee àddina muy 48 kon mbiram ni mu demee noonu rek la mën a demee muy lu yéeme Cheikh Ahmad Kabir moo seere loolu ci moom yàlla dogal nag euh, Serigne Dieng moomu sëñ Dieng moomu di góor gi Dieng yàgg ak sëñ Abdou Samad lool. ci ñi nekkoon buntu mbar di tër bi ci la bokk waaye dafa wax ni du nekke ca daara ja du sëñ bi nekkul woon ca daara ja dafa am lu daan ñëw di leen feeñoo mu mel ni ay ay bukki wala lu koy nduru wala lu yéeme rek yoo xam da leen daan sonal lool ca daara ja waaye mu am bis sëñ bi ñëw fa ñu wax ko ko biñ ko ko waxee euh, mu ni leen su ñëwetee ni ngeen ma woo mu ñëw rek bi yooyu dikkee mooy bukki yi wala lu ko ñu daw wax ko sëriñ bi ci keesam sëriñ bi jàng nee na bi sëñ bu sama génnee daf ko joxoñ ni ko bu ma a gisati ci daara ji boobu lañ ko gëj a gis doomi sëriñ tubaa nag euh, yaakaar naa ni lu ñu wax ci moom ci kéemaan rek li ñu waxul ëpp lu ñu wax ci moom ci ay xar baax li yàlla def ci moom ci xar baax moo ëpp ndax sëriñ tubaa moom Euh, lépp lu baax rek moom la ko yàlla jox mus sa def lu nit man mus sa def lu nit def doomam yi tamit def na ci moom lu nekkul ci nit ndax bokk ci sëñ Tuubaa rek sëriñ bee la tànn boole la ci boppam kon sëñ Abdou samat nekkoon koo xam ne tamit daana wër réew mi bari na fu bari fu mu dem ci réew mi ndax bari na tey kër seex yoo yooyu dem ci yoon wi fekk fa Abdou samat ni nga koy fekk ci kër sëñ Tuubaa doomi sëñ yëpp ndax sëriñ Fallilu moom ñeent ñeenti sëñ Abdou Samad sëñ mi fi bàyyi mooy ñeenteelu sëñ Abdou Samad la wax ñu jaxasoo woon lool mu nekkoon magam nekkoon kilifaam nekkoon sëriñam nekkoon léppam moo ko sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Saalihu sëriñ Sohaybu moom dañoo bokk lépp ñoo bokk wajuru góor bokk wajuru jigéen ba gis nga sëriñ Abdul Ahad sëñ Abdou Samatam ñu ngi nuy doomam soxna abi mag la woon yaakaar naa ni sëriñ Sidi rek ko magoon <laughs> Serigne Souhaïbou Serigne Abdou Samad yàlla na fi yàgg loolu te wér Serigne Abdou Khadir Serigne Abdou Samatam Serigne Mourtada kazalika noonu ñoom ñëpp Cheikh Mouhamadou Lamine Bara amoon lool yërmande ak cër ci moom mu Mouhamadou Moustapha Serigne Bassirou nekkoon benn ak moom Cheikh Ibrahim tey ñu dem ba mook Serigne Abdou Samad ñoo bokk benn barab bu ñu nekk eh, ci armeer yi eh, Serigne Abdoulahi borom dër bi nekkoon benn ak Serigne Abdou Samad moom itam kon Serigne Serigne Salihu moog sëñ bu samat benn lañu woon bari na tey ñoo xam ne ni dongay tarbiya sëñ bu samat lañu woon bi sëñ bu samat nelawee ci Cheikh Mourtada la ñu yeesal Cheikh Mourtada la ñu àndal loolu kon diggante sëñ Abdou Samat ni sëriñ maam Mor Cheikh Mourtada warmaale aji maam so loolu doy na sëkk ak ni ko waa kër sëñ Tuubaa yëpp warmaale rek euh, euh, ngir dabu bànneexub sëñ Abdou Samat ci sëñ tubaa rek la ñuy dabu ba ci sëriñ Moustapha Saalix nga xam ni kenn la ak moom ñoom ñaar jënd jëmm lañ di sant bu baax Serigne Cheikh mi di wax ni daal tey ji yàlla dogal muy Serigne Fallilou Serigne Abou Baraka moom tam yàlla fi yàgg lool te wér di ñaanal njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara ndax aji maam Bousso foofu la nekkoon di liggéeyal yàlla di ñaanal tamit njabootu Cheikh Issa gépp ndax tamit kër Serigne Sidi Xay Jenn itam fa nekkoon di liggéeyal yàlla waaye di ñaanal bu baax euh, Serigne Cheikhouna moom Alaaji Bara Mbacké Fallilou mi nga xam ni moo jiite mbooleem daayira ak faati Serigne Abdou Samad yëpp ak Serigne Galas Rakam ak euh, Serigne Abdoul Ahad Jenn ak soxna maam Xëri Jenn ak mbooleem Serigne Abdou Samad ma Alaaji Baara ak mbooleem njabootu Serigne Abdou Samad gépp ba ci kër soxna Moome kër soxna May munatu kër soxna May borom layatul xaddar nga xam ne ñoom ñoo bokk seen néegu teejeeg boobu di ñaanal mbooleem soxna gàdd mii kilifa ñetti kër yooyu yëpp yàlla fi yàgg loolu te waaye di ñaanal Serigne Cheikh mi moom Serigne du yàlla guddal fanam moom itam te wéral ko kooku mooy Serigne Abdou samat gane àddina 1917 génn àddina 1948 Serigne Touba jaarale ko mu bokk ak Serigne Sohay bu dalandoo jàngandoo alquran euh, jàngandoo xam-xam ci barab yu wuute waaye moom nag jaar na ci Serigne bu Bousso ab diir ndax booba fa la nekkoon ak Serigne Abdoul Khadir daan ko wax xutbu Serigne Abdoul Khadir di ko wax xawsu ñoom ñaar tur yooyu lañ doon wowante jaxasoo woon lool nekkoon ay xarit lool waaye Serigne Abdou Samad nekkoon benn ak njabootu Serigne tubaa gépp waaye xaasatan nag Cheikh Mamadou Moustapha di jëloon ko dénkoon ko Cheikh Mamadou Fadal mu bokkoon tamit ci eh, ñi gënoon a wax nañ ni moo gënoon a nduru sëñ Touba ci melo ak ci jëm ñu ngi sant bu baax eh, waa Touba info ñi nekkoon ci eh, reportage bi ak suñu mbokk yi doon jël yëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak xéewal di saare Serigne Modou Mamoun Niang mi doon coordonné lii asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.